mbokk jullit yi mbokk taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteef ak ci njiita sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke xalifa sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke njabootug sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ibn Xaadima Rasul ñoo am mbégte di yëgle bésub fàttaliku bésub màggal bésub ñaanal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke muy màggal annuel sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke fa Tuuba kër sëriñ bi jàkkarloo ak juma ji muy ñaar édition bi bi programme bi nii lay tëddee dimanche ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août 2019 table ronde di jotaayu waxtaanu diine ak ay borom xam-xam ci dund liggéey ak njàngaleem sëriñ bi ca kër sëriñ Cheikh Asta Mbàkke ca fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août 2019 table ronde ca kër sëriñ Abdourahmane Ñang xalifa sëriñ Baara Ñang ca péncum Touba Guédé ajjuma fanweeri fan ci weeru août 2019 plateau spécial Baaxe Mbàkke ca marché Ocass dimanche benn fan ci weeru septembre 2019 conférence su sët yi ci buntu kër sëriñ bi gi muy bésub sant di bésub pajum aajo àllarba ñetti fan weeru septembre la cérémonie officielle bi li ko dalee 9 heures 30 ci suba ñu di ko yëgal njabootuk sëriñ Touba gépp mbàkkeen bu soobee mbooleem ñi ñu bokkal maam maaram cheikh yi taalibe yi këru diine yi mbooleem ñu wala rante woon ak sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ci biir réew mi ak bitim réew di ko yëgal jumaa yi jàkka yi daara alxuraan yi jàngkatu xasida yi di leen soññ bu baax nag ci njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida yi ñuy addiyal sëriñ bi bés bangoog ñaar fukk ak juróom-benneelu édition màggal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ibne Cheikhul Xadim quatrième xalif général des Mourides talaata ñetti fan ci weeru septembre 2019 kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Tuuba